xasida yi moo nu war a dàqal lépp داخل ñuy lekk lu داخل jàng سليمان بصرف المسيات كيما تقود من للرسيات أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها وودعت لي هدايا بالمبرات أمست طيب نفسي كي أميل لها وولت ميل قلبي للهديات وخاطبتني بما يدعو بغذبتها وأزغرت صدق وعدي بالرقيبات ثورا تديني وتوليني دوائفها وتارة ليتهدي بالبشارات لكن علمت وإلمي سوف ينفعني بأن سات مين في المقالات كانت موائد قرقاب لا مثلا وما موائدها خير القيانات ليست تريد إلا قد أردت كدرا من بعده وتجاري بالمكيدات ولا ترين فإلا أقلت دررا في وتلمرها المن في المونات فوت عن يعقلني بي جنانا وجهورا وسياتي وما القوانين لواتي لا تكافئها سلمى وإند وليلى في الخريدات وما القوانين لواتي لا يفوش بها إلا الذي استان بي تقوى بتاماتي هنا القواني لواتي دار ماكزة فيما لا من قيام واستجنات وار لدى الله إين لا يقاربها عين ولا درج دمت نقياتي وار لدى الله أدركت مقدرة

خضر المقلب بالاعتداء بامبا لا تكفر بلا كفر لا تكفر بلا كفر وهو النصير منه فداء bamba la sagore bela ko la sagore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

Yeah. حمد الراب غير المراب قدر المقلب بالانتهاء Bela malaye walandiaye

لم يبلغ من المصطفى محمد سرا وجارا في برايا زمدي مدلنا للام والكفر معها وبنزيته لكل شمها يقود بجائر والباطن والأتاه لله في كل زمن همة عن الغياب أزبت والاستقامة وصفا وابت لي بان كون المستوى رئيسا لكل من قد فضل رشا قل قدمه فوق كل رقبة من سار الخرى كل من خبا محمد دفلني نيو ماغا سيدنا محمد محمد def leen ni ñu màggal sayduna muhammad muhammadun misaalu yaati fii ma wa abadan la yaati ku mel ni sayduna muhammad dootu am muhammadun misaalu yaati fii ma wa abadan la yaati shabatana rabbana lam yuridi mislan lahu fa misluhu yuridi loo siyaadatu loo baraa يوم لس ولد سبا هو النبي ورسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل بلا بديع من خير الجمال وشنه خدوش عن خير كمال كون نبي المنتقى محمد خير الورى مختار عند كون نبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند سمدي كون النبي المنتقى محمدي خير الورى المختار عند سمدي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برمتوا yàlla dogal nah, mu nekk jàkkaarloo nga ñoom ci wàllu moom mosoo ñu gis ko ay yoon waaye tey jii yàlla xam ne xam ne kii lool allah ñu ngi ko war a jàng ji dëkk bu ñuy wax njenne njenne la gan sëriñ Issa Diagne sëriñ Cheikh Diagne moom sëriñ Youssou Diagne moom la ñuy jàngal incha allahu mu mel ni gars ñuy xaar ca boori jumaa ja ngir ñu war a dem foofa waaye ni ma ko waxee rek koo xamul noo koy def noonu la defa tax te jàmm day kenn ci ñun jàpp ñu jàpp njaboot gi bu baax baax loolu waral bu ñu waxee bis bi rek duñ mën a def lu may teew fii loolu waral ñu dagg yite yëpp rek ñëw teew ngir jëmmam waaye ñoo ngi ko ñaan suñu borom guddal fanam te wéral ko yàggal ko fi bis bii mu yàgg koo def te lépp lu mu ci yéene rek yàlla na ci man lu koy jotam ci barke Seex Xaadim di siyaare soxna soxna am su baax si nga xam ne moom it nii ci kër gi baax lool te yaatu mu ngi koy siyaare baax a baax di siyaare mboolem njaboot gi ak dëkkandoo yi ak yi nga xam ne dañoo jóge sori ñëw teew ci bis bi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare leen jox seen wàccuwaay jërëjëf yàlla ba doon nekk jàkkaarloo ak gis nga ci wàllu moom mosoo ñu gis ay yoon waaye tey jii yàlla xam ne xam ne allah ñu ngi ko war a jàng ci dëkk bu ñuy wax njenne njenne la gan sëriñ Issa Dieng sëriñ Seex Dieng moom sëriñ Yuusu Dieng moom la ñuy jàngal incha allahu mu mel ni gars ñuy xaar ca boori jumaa ja ngir ñu war a dem foofa waaye ni ma ko waxee rek koo xamul noo koy def noonu la dafa tax te jàmm day kenn ci ñun jàpp ñu jàpp njaboot gi bu baax baax loolu waral bu ñu waxee bis bi rek duñ mën a def lu may teew fi loolu waral ñu dagg yi te yëpp rek ñëw teew ngir jëmmam waaye ñoo ngi ko ñaan suñu borom guddal fanam te wéral ko yàggal ko fi bis bii mu yàgg koo def te lépp lu mu ci yéene rek yàlla na ci man lu koy njortam ci barki Seex Xaadim di siyaare soxna soxna am su baax si nga xam ne euh, moom nii ci kër gi baax loolu te yaatu mu ngi koy siyaare baax a baax di siyaare mboolem njaboot gi ak dëkk yi ak mbokk yi nga xam ne dañoo jóge sori ñëw teew ci bis ñëpp ñoo ngi leen di siyaare leen jox seen wàccuwaay jërëjëf benn boobu mi ko baax sax léegi ko tëgg Lord. Oh.